naa yuuxu yaa mais xam naa ne Eumeu Sène moo daan ne Eumeu Sène moo daan ne Eumeu Sène moo daan right may leen musique see félicitations Modou Lo comme da ngay dóore ñuy daanu jërëjëf. yeah félicitations Eumeu Sène félicitations Modou yow laa faraloon man doomu Pikine laa du ma dellu ginnaaw jamais xam li ma la wax. kon gars yi nee nañ dóor na Eumeu Sène mu daanu xéewal Modou Lo roi des arènes félicitations xam nga loo njaga yaaram sama nijaay xam nga sama gaañ Ali Ndiaye. xam nga am nga ndam tey Alioune Lo am nga ndam sama jarbaat yi sama sët yi seen sinaar xam nga am nañu ndam kon gars yi ñu déglu musique tuuti après ñu dellu siwaat ah